tey bii kat ah lëf la ah lu rëy parce que dama xam ne waa mhm. mook famiyam jubóowuñu mhm. la fa de waaw mais waa ji wax nii lu rëy mhm. dégg ak seen waa kër ah, waaw loolu lu ah, na wax jàpp nañ nga jabar gara moo ko man ñenn ñi ne déedéet njëkkee dañoo sëkk mm. waa ji nag dem na nag ba ne leen léegi génn leen kër gi ñoom sax génnoon nañ de njëkkoon nañoo génn. waa kër ga ñu ñëwaat ah mooy seen càmmiñ de xëy na boo demee demee te du day tukki di dem di ñëw wala day tukki di dem di ñëw fii la ni. pour léegi nag. waaye génnee de trop bi mooy bii nag da caa boole ndey ja. Ah ah, ah ah ah waaw waaw waaw génnee na yaay ja de day génne yaay ja de huissier daal ñëw na wax leen ne leen génn leen kii daal day loué yeneen néeg yi day loué fii yëpp pour ngeen génn. génne ga nag jigéen ñoom jubóolul yematuñ ca waaye ndey ja ca boppam it alaaji nee na ko daal a takkal parce que ñoom daal ah ah ah jubóow ñoom ah jubóow ñoom de eh, eh, ah, wutulul yaayam ka ah dé déedéet même ñi ñëwoon noonu sax di leen génnee si sax seen yaram dafa daw ba dañ ne ñoom dañoo bëggoon a wuti néeg sax pour fat fa ndey waaw maire bi ndax lii dafa xaw a daa xaw a tiis léegi nag ah, lu xew nag ba mu ko ko war a jaral xaaral si maire ana ñoom ñi ngi génne te nu bokk ak moom ndey ak baay man de tànk yi tànk jaaxle donc moo fi ma indi ak am yaakaar si yéen moo tax ma ñëw fi te tànk yi tamit sama waay jur moo ma fi yabal moo tax ma ñëw fi te mënul jóg mënul dem ma jugal ko pour ñëwal ko ci lépp ci wàllu jullit ñun dañoo nekk benn famille boo xamante ni suñu waajur bu góor daf ñoo yaroon ci diine ak lislaam yooyu uufoon njabootam képp kuy njabootam rek uufoon na la bëggul ñu xiif bëggul ñu mar bëggul ñu rafle yoroon ñu nag ci ñàkk tàqalikoo boole woon ñu ñun ñëpp kon suñ sañoon tey jii loolu lañuy ñuy ba leneen luy am am waaye seytaane moom dafa bari doole. lan moo xew. li xew mooy suñu benn mag moom moo am ak suñu moo am ak ñun problème mën nañu sax problème bi ñun ñëpp la ndaxte waaye bu dee ñun ñëpp ñun defuñu ko dara mënul taxaw ne ñun lii lañ ko def li ci ëpp sens mooy ñun daal xam nañ ni jabar ji moom la topp. ndax jabar ji moom moo koy wax defal mu def moo koy wax bàyyil mu bàyyi ndax man ci li ma seetlu man moom bi muy nekk euh, ci àll bi daana ma woo ne ma man boo maa ngi si kër gi mu woo ma ne ma dafa bëgg ñi nga xamante ni jabar ji dañoo am ak moom problème ñu jéem leen a lijjanti ñu nekk si jàmm ma ne ko waaw léegi bi ñu defee noonu ma woo jabar ji ne ko sama ñaar rakk ñoo nekk si kër gi mu am ak ñoom du ñu tuddante ma woo ko ak sama benn rek boo xam day sëy ma woo ñoom ñëpp ne dama bëgg mu ngoonee ñu daje sama kër yaay ñu waxtaan pour ngeen jabo juboog seen jabar ñu ne ma waaw dinañ ñëw léegi man après ci laa ñëw ci sama jabar ma wax ak moom ma ne ko bu ngoonee xale yi dinañ daje ñu dem sama néegu yaay yéen ñëpp ngeen nekk si jàmm parce que jàmm moo gën ay mu ne ma man de bëgg naa dinaa bëgg naa jubo waaye am na ñoo xam du ma jubóog ñoom di tànn ñi muy war a jubal ak ñi muy bàyyi ma ne ko déedéet parce que man loolu mënuma ko su dee damay defar bugguma yàq àndal ak ñëpp nga jubóog ñëpp mooy dëkk ndax sa jëkkër wax na ma ni nga jubóog ñëpp kon da nga war a jubóog ñëpp mu daan ne ma sama jëkkër sax ñaan na ma waaye mayu ma ko ko diw daal du ma jubóog moom mu ko ah kon nag baax na léegi nag xëy na nag ci yooyu la ci doon waxtaan ak jëkkër ji ba ni jëkkër ji ñëwee bi mu ñëwee ñun ñii man mii nga xamante ne man maay jigéen ji gën see nekk mag yàlla dafa defoon ñun ñaar suñu lépp doon waaye jigéen sam jabar ji dem na ba jaxase koog man ba léegi maa ngi moom du ñu tuddante mën naa ni sax keroog bi nga xamante ne dañuy premièrement bi mu ne day dañuy ñëpp génn këram day tëj day day luye këram boobu jabar ji jaxase na koog man ñun ñaa ñu jotante ci wax ju sew joo xamante ne du waxi dara mu woo mu woo sama mu woo sama rakk bu góor bi daan ni ko damaa bëgg ne ñëpp génn sama kër ma luyee sama kër. sama sama rakk bi ne ko ah mu ne waaw mu ne ko ndax sama jabar amul jàmm si kër gi kooku ne ko ah mu ne waaw. nakate bi mu defee noonu kooku tamit ak ngoram bugg koo wax yaayam mu ngi demaaleeg loolu buggul wax yaay ci dara bu liggéeyee xale bi journalier ba ñëw nakate su wàccee day dem dem wuti ji néeg appartement bu mu dugal yaayam te mënu ko sax waaye ngoram mayatu ko ko rek te du doon tey dong la ñu mosoon a génne ndax mosoon nañoo njëkk a génnee te lépp ci cadre jabar ji la. moom li mu leen daan génne yëpp daan génne wala seen yaay wala problème bi yëpp seen yaay mos si bopp. problème bi bu njëkk ba de sama yaay bokk si woon waaye boobu fekk na sama rakk yu jigéen yi boobu kenn amagu si jëkkër ñu jotee jabar ji kon kenn dong moo fa jotee jabar ji jabar ji moo ñëw fekk kooku di fóot mu ñëw soxla si wa sangukaay bi sotti ko ci ndox ma jaxase ndox mi kooku daal di dem ne yaay gis nga diw de fekk na ma may fóot saa mu laaj ma siwo bi mu sotti ko jaxase sama yére yi jëkkër ji dégg muy wax a jabar ji daan ko dégg ko mi ngi noonu di ma di ma si jëkkër ji génne si néegam rek attaqué sama yaay daan ko ñii lu leen neex lu leen neex la ñuy wax ñu ngi noonu di la jaxaseeg sama jabar meer bi daan ko man luñ ma wax mu indi coow nag man boo fekkee ne yàlla def na ni sax man boo bëx nekkuma fa dama xëy léegi biñ defee noonu moom histoire bi bari foofu man fekkuma fa waaye dafa mu nuy xale yi ñoom ñëpp nañ génn këram abal ko génn leen sama kër génne leen koñ bi fees dell koñ bi fees dell kay nit premièrement ba waaye sama yaay tamit daan leen ñii ay jigéen lañ te amuñu amuñu dara ay xale yu ndaw man nga génne génne woo leen mu ne génnewuma la kon nag bu ngeen ànd yéen ñëpp ngeen dem ñi ko fekkee nee nañ keroog jour boobu ba muy bu maxee am na sama rakk boo xam ne ba ko bu maxee wallaahi nee nañ moom maire bi ñoo ànd daanu léegi maire bi ba mu gé ba mu bañ defee noonu mu génnee leen tëj buntam moom tamit maire bi daal di dem kër càmmiñam yendu fa ba si ngoon gi ñu def ndaje famille foofu ñoom ci famille bi foofu rek rëy sax bariwul woon ndax boobu yëgaguñ ko woon noonu ñu waxtaanu ko ñu jël siwaat si kër gi waaw léegi nga ne euh, moom dafa jël décision pour génne yaayam ak ay rakkam parce que dafa jël décision boobu ndaxte doom su fekkee ne abandonné nga sa yaay juróomi weer ñetti weer yi gisoo ko déggoo ko kero bi ngay ñëw fa nga jóge woon say kër këri goro ñibbisi ba nga fëggee sa yaay moo la ubbi nii nga ko rombee dugg si biir kër gi. ah ok comme moom mosoon na génn kër gi dem kër ay gorom ànd ak jabaram bàyyi leen foofu ci kër gi. waaw tëj bunt tëj waañam dàq jànkam nangu ceebam. nangu diwam nangu dépasse am bi xëy dem si bitig bi laajte dépasse bi borom bitig bi na ko fii dépasse amatoo leen ko fii mu dem ànd ak jabar ji dem bi mu demee tamit woowul yaayam lijjantiwu ko ñetti weer ba ko ñeenteel si la ñibbisi jour bi muy ñibbisi ba mu fëggee yaay jee ko ubbil mu ñëw bi mu ñëwee dugg romb yaayam dem lijjantiwul yaayam xoolu ko ba muy ñibbisi moog jabar ji ñoo àndoon déedéet boobu dafa bàyyi jabar ja ñëw léegi bi mu ñëwee nag ci la jëliwaat jabar ji bi mu ñibbisee ci la demaat cër jabar ji jëli ji ko indi ko si kër gi. léegi bi mu ko indee si kër gi nag ñu def ni sax bu ñëwee dina continuer joxe lekkam wala joxe naanam waaye ba nii ma lay waxee bi si tay bi dafay toog bu biir néegam wala mu dugg si biir waañam te ñun li tax ñu xam ne day génnee maire bi ba mu ñëwee dafa ne day luyee néegam. xaar bala ngaa ñëw ci location bi instant bi nii ñaari njël moo am seen kër. waa ñaari njël moo fa am te suñu waajur bu góor ba ñu juree ba léegi ñu nekk moom moo ñu yor ba mënatul moom suñ càmmiñ bi yor ñu guleet ci at mi la ñu tàqalikoo njël ba mu ñibbisee ba mu tëddee si ay gorom ba ñibbisi boobu ba léegi day togg àppaaram maire bi di deema dalam am di ko togg àppaar ok d'accord léegi nag léegi nag fu mu nekk nii euh, moom ñëw na ba indil leen huissier wala naka la demee loolu agence la indi waa agence la indi ba mu indee agence bi premièrement agence bi dafa moom dafa dem lijjanti ay kayit boobu ba mu luyee ne ndax kër gi saal bi maire bi la daan jullee ci lay seetaane télé ci lay def lépp ba mu ñëwee dafa jël dafa nangu saalam jël saal bi fauteuil yeeg yëpp dugal si biir néegam nangu teleem dugal si néegam taal di seetaan luyee saal ba luyee néeg bi dem agence lijjanti kayitam ba mu ne kaj ba mu waññeekoo la ñëw defal ndànk instant bi nii saal bi dafa am ñeneen ñoo xamante ne ay jàmbur yu ñëw yu ko luye waa ay jàmbur yu ñëw yu ko luye te ñun ñii di ay jigéenam nanguwul ñu dugg si biir kër gi nangul suñuy ay jarbaatam dugg fi ay jarbaatam bu ñu duggee si biir kër gi day ñëw si yaay ji leen wax naa leen ñii bëgguma leen a gis sama kër nañ génn sama kër léegi nag tere na maire bi ay njabootam dugg si biir kër gi tere na ko famille bi ñu nga xamante ni moom la maire bi jur kenn du dugg kenn du génn suñ ñëwee si koñ bi la ñuy taxaw woo suñu yaay mu génn suñu yónnee suñuy doom si parenteer yi la ñuy taxaw ñu woo seen yaay maam ñu génn ñu wax ak moom loolu tamit xam nga ne metti na maire bi dundatul sax. ok léegi UG bi UG bi moom lan la lan la wax sa yaay. UG bi moom njëkkee ñëw dafa ñëw fekk moog doom ji jigéen ji ñoo ne si kër gi ndax sa kenn de kenn ñëwatu fa kenn ñëwatu faa ñëw moog doom ji jigéen ju ndaw ji rek ñoo fa ne ba mu ñëwee UG ba ñëwee si néegu waaj. moom ak kii toog ni waaw moom ak kii toog mu ne ba mu ñëwee ci lii bi la ñëw euh, ci néegu waaj la dugg ba mu duggee ñoom ñaañ wax seen wax mu génn daal ni daal di woo doomu maire bu ndaw bi turam koku ne ko maa ni munuko ana sa carte d'identité koku ne ko pour lan munuko agence la munuko agence lan munuko wa gi legi ñun ñoko yoré koku ne ko wa man kër gi bo leen ko yoré man lo sama yoni ci fi suñu kër la man sama yaay la fi nekkal duma jox sama copie d'identité sunu munuko ana sa yaay munuko day sangu far fi ñuy waxé maire bi génn génn sangu fekk waa taxaw ci buntu néegi maire bi di xaar maire bi pour mu ñew maire bi ba mu mu ko maire ak mom ba jamm ak mom ko dama bëgg nga jox ma sa copie d'identité fekk grand bi ba mu jógee ci lycée bi ba mu jógee agence jour ba mu fa jógee ñëw na ne maire bi na ko agence laa demoon pour sama affaire kër gi maire bi na ko eh, bu ma ne yaay man du ma sa yaay parce que yow bu doon sa yaay laa di nga tëbaski si kër gii rey sa xar lekk ko yàq say njaboot ba mu jeex tàkk dagg morso sax néew ma ko yaay am sarax man bul ma yaay du ma sa yaay mu ko waaw damaa jum foofu maire bi wax ak moom foofu léegi nag looloo xamal ni maire bi kon kër gi agence ko yor léegi ci ginnaaw su bëgg nag ci la agence ñëw bi agence ñëwee nag daa di daa di wax loolu maire bi daane ko sa copie d'identité maire bi tamit tiit bay lox ndax mag la te yenn yi mënewu ko mu tiit daane ko copie mu ne ko waa mu ne ko pour la mu ne ko waa kër gi léegi agence ko yor il faut da ngay joxe sa copie d'identité ak sa copie d'identité doom ji gi ci kër gi yéen ñaar ñaari néeg yi après dinaa leen jox di ngeen ñëw agence ba ngeen signé contrat bi maire bi ne ko ah man de fi ma toll nii xaaral dugg ci néegam di wër copie d'identité am wër wër tiit na boobu xamul fu mu def copie d'identité bi waa ji daan ne ko maa ngi dem après dinaa fi ñëwaat léegi nag waa ji dafay ñëwaat waa ji ba mu ne maa ngi dem dinaa fi ñëwaat dafa dem léegi bi mu demee mu daal di laajte doom ju góor ji maire bi ne ko doom ju góor ji de dafa xëy wàccagul mooy ku ndaw ki mu ne ko moom tamit bu ñëwee la wax ko ne ko na préparé copie d'identité maire bi ne ko waaw bi doom ju góor ji wàccee ok d'accord léegi temps bi mu ngi dem euh, dem ngeen foofu noonu moom dem ñoom dem ngeen agence ba ñu defal leen contrat maire bi signé na contrat am signé wul contrat bi. copie d'identité bi waa agence dañoo ñëwaat deuxième fois jël fi copie d'identité maire bi ak doomam bu góor bi léegi jël nañ copie d'identité ba yóbbu nañ ko agence. léegi maire bi moom waa agence moom dañ leen a fay pour waa ji dañ a fay pour ñu liggéeyal yoreel ko këram. léegi contrat bi ñuy def nag contrat bi xamuñu moom nee na luyewuñ ko kon dañ koy génnee. maire bi nag moom fi ne nii bëggatul si kër gi kër doom ji dara dara dara dara dara léegi na ñun dem nañ ba ci agence ba jëlee nañ fa ay renseignement yu leer nañ lan ngeen fa jëlee waaw agence bi nee nañ ki fi ñëwoon kër ki jee ñëw nee na bu ñun bu ñu amoon moyen dañuy jëlal maire bi nekk yóbbu ko fa kon kooku xam nga am na lum fi xam ma ne ko ñun de ñun de ay jigéen la ñuy ay jigéen la ko yàlla may ñoo xamante ni ñu dañuy sëy moom la yàlla may wërsëg nag catuwuñ ko yàlla na ko ko yàlla saxalal mu gën a yokku ndegam na moo mën a def ni yaayam ñun tey ji ay jigéen lañ dem suñuy borom kër su fekkoon ne am nañu moyen dañuy jël kër dugal ci suñu yaay wala ñu wut néeg dugal ko man mii di jigéenam ba mu taxawee ne naa génn këram damaa dem luye ji di fay sama néeg nekk faak samay njaboot su ma lu ma am yóbbu sama yaay waaye fi ne pour ma jël charge jëlal sama yaay kër wala ma jëlal ko li mënuma ko maire bi mu ne ma ama ah, na ko ah man da wax naa leen li ma xam bu doon benn néeg sax ngeen jël ko kon xam nga ni kooku bu waxee loolu agence boobu borom agence bi mu jox lépp ci loxoom xam nga fekkoon ne maire bi du génn dinañu toog leen rek maire bi dañ koy laaj ay kayitam waaye du génn waaye danañu boo leen amoon benn néeg ngeen dugal si maire bi sax moo gën ndax moom loolu man duma ko lii duma ko def sama waajur ndax ñëw naa ba si kër gi toog ne ko man dama yore ay waajur waaye sama waajur duma ko def duma def ni sama waajur duma leen génnee ndax mbiri agence dafa metti mbiri agence dafa metti surtout mag yaa ngi dégg léegi xanaa kon loolu leer na léegi nag maire bi nag moom mënul ñëw moo naroon a ñëw fii